wax rek euh, on ne peut pas faire des omelettes xañ na sans casser des œufs ni ko tubaab di wax kuy omelette di nga toj nan toobañ po bi mu fi installé booba metti woon na xañ ndax suuf dafa diis ci baykat waaye itam tey jii population yi xànd nañu ak président Aliou Lo vision bi mu doonoon pour xam ni commune bi mën la développer sans que tant ay ay ay entreprise installé wu fi yu mel ni tooben ak le parc éolien waaye tooben po gi dafa am mention spéciale ci entreprise yi mujj a ñëw ci gox bi ci la bokk mais manoon naa yem ci patante rek bi muy fay commune marché bi ci patante bi ñu toobeen fay ci lañ ko tabax c'est un symbole waaye toobeen yemul ci lool daa bàyyi pata daa dañoo bàyyi patente boobu pare itam di defaat RSE RSE boobu ci la formation bi bokk obligation ci toobeen ci la defar stade bole ci la ñu defaral centrale solaire bi centrale solaire boobu toobeen ba mu ko defee Euh, parc éolien bañ koy roy ci loolu bay defaat beneen centrale solaire fële ci Taïba Ndiaye loolu yëpp jéem doon ay njariñ yoo xam ni ay njeexital yoo xam ni vision maire président Alilo yal na yàlla kattanal ko te may ko wér loolu moo indi loolu ndax yëpp tam moom ci ci expertise am la ak visionnaire am mu indi fi entreprise yi pour que entreprise yi aussi jàppale ko ci développement commune Taïba Ndiaye di ñu ngi jëlee emploi ci gox bi liñ ci man fële boo fa demee tooben la majorité des employés ci commune bi lañu dëkk boole ko ko ay action nag yu dul jeex vraiment kon tooben ko maire mi ngi leen di nuyu waxoon na ma ma yóbbante leen sant euh, ngërëm yooyu donc euh, pratiquement loolu la woon réalisation yi euh, sa suñu grand sàmm ñëw na ci ñëw na ci kuy yëpp ay millions yu takkoo takkoo takkoo la vraiment kon ci kàddu yooyu la daaneele di leen sant di leen gërëm di déclarer vraiment la formation ouverte di leen ñaanal nag mu doon formation boo xam ni dina commencé ci bisimilahi rahmaani rahim ci jàmm waaye tam àgg ci jàmm xam-xam yu rëy rëy vraiment jóge ci man de maa ngi soog a fekkee formation boo xam ne tey jii dañ naan dañ koy commencé tey résultat yi génn suba loolu moom maa ngi koy soog léegi nag ngeen dalal seen xel ni aussi commune bi vraiment pare na pour jàppale la. ñu ngi ci mbas mi yàlla na fi yàlla yàlla na fi jóge jàmm waaye commune bi fu mu toll mi ngi soxla ay ay ay sa ay saabu ay gel ak yeneen ak yeneen yooyu nag bala ñu koy jënd ji faneen te GIE GIE bi man koo defar ñu ñëw jënd ko ci yéen pour firndeel leen loolu vraiment xañ na yoon bi bett na ma mais soxna maam xari dama bëgg saabu yi ngeen di def suba man maa ci jëkk a jënd tey nag ngeen xam ne rek sama xol dafa tooy bu bu kàddu yi dëngee rek ngeen jéggal ma ko maa ngi nuyu mbooloo mépp ñun li gën a jafe lool lañu am mooy àndandoo doon benn ndax lii ñu am du benn dëkk rek juróom-ñetti dëkk la mën naa ni sax fukki dëkk la ñu ngi ne àndandoo doon benn dank koo ni jógal mu jóg koo ni toogal mu toog kon foog naa lii moo ñu ko may di di di nuyu président Alilo moo yebal Malick Ndiaye ak Mafal Mbaw di nuyu sama góor góor a sàmm sama doom Serigne Ndiaye Serigne Ndiaye moom dama koy ñaanal ndax gis naa taxawaay bi mu taxaw ndax Serigne bi ñuy may 3 millions yi bi ñuy may 3 millions yi ci Serigne laa dem wax ak moom mu ni ma sa groupement yónnee ma ko yónnee ma sa groupement ma yónnee ko groupement mi muy dox ba ñu may ñu 3 millions bi ñu ko mayee sëyina bu Azura ñëw gis ko mu ni jigéen ñi liñ leen may dafa tuuti gis naa ñu may forage bi temps gis naa ñu may sem ba gis naa ñu may stade ba temps yéen jigéen ñu leen di leen may 3 millions loolu dama ko xeeb. Seynabu Seynabu mooy jigéen ju man góor Seynabu mooy jigéen ju man góor lii lépp Seynabu la ndax Seynabu moo laxasu ni kat jigéen ñi eh, eh, eh, village yi yëpp dinaa leen lijjantil pour ngeen nekk ci ay activité àndal ñoog Serigne Ndiaye mi Serigne Ndiaye muy guddi muy bëccëg liggéey bi mën naa ne fan yii yëpp liggéeyu lu mu xam ndax ñun ak di génne xaalisam nag di ci dugal di sant maam xari mii maam xari di doomi njóobeen fii ci Minam doomi gox bi la maam xari dañ lay ñaanal yàlla yàlla yàgga sa taxawaay musal ci seytaane foo bëgg a àgg nga àgg nga àgg fa ak ñun ak ñeneen di sant Louise di sant Roqaya ay xale yu jàmbaare ay xale yu baax guddeeg bëccëg ak Odette ay guddeeg bëccëg maa ngi dégganteeg ñoom ba ay minuit ñu ngi ci liggéey bi ngir rek lu nu réussitel ñoom itam ay jigéen développement lañu ay xale lañu waaye ay femme développement lañu ndax développement rek moo leen ñor kon nag ñun lii damay wax laaw la cat yal na nu yàlla musal ci cat. ba ñu commencé ci bisimilahi rahmaani rahim àggale ci alhamdulilahi rabil alamina ndax ñun defe naa ni lii mankoo ko waral ñun mànkoo nañu xeebante wu ñu xasante nen dañoo àndandoo rek di yëkkati di xàcc di dóorandoo li may ñaan yàlla nag liñ ci liggéey yàlla na barke ci darajay nabil Moustapha dem ba suñuy sëdd ci liggéey ndax kat yow maam xari loolu nga ñu bëggal ndax sànq day nga ma ni ma céréale locale bi dina indi chambre froide bi ñu nekk ci. Euh, céréale locale bi kon yaakaar naa lii du savon rek de lii da nit ay savon la waaye céréale locale bi tam a ngi ñëw kon développement ngeen bëgg li ngeen bëgg ci ñun nag yal na leen ko yàlla defal te ñuy santaale nag aliloo mi nga xamante ne nag mooy président commune bi moom itam ñu ngi koy santaale Malick soo demee nga àggalee ñu cant gi ndax moom itam yàqu ci dara sëriñ nag yow itam ñu ngi lay ñaana rek comme ni ma ko waxee woon rek Ndiaye yaa ngi jàppale gunge sëriñ guddeeg bëccëg dama koy woo su ma jotu na bu sëriñ laay woo wala ma woo Roqay wala ma woo Odette wala ma woo Louise Louise ànd nañ fi Thiès mu dagg liggéeyam di ñu wutal groupement bi àndaat nañu mu jëli groupement bi àndaat nañu dem ubbi ji compte Louise su ko neexoon tam du bàyyi ay iteem di nekk si loolu day jël xaalisam moom mi ngi ne lebal nañu xaalisam fayeguñ ko ko def ko ci te su ko neexoon tam day téye poosam kon nag ñoo ngi koy sant ñoo ngi leen di gërëm ñu ngi sant Azura to ɓen powon ko baax a baax a baax a baax a baax